Tape www.suividecolosénégal.com À École au Sénégal, c'est facile, te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus ci fi ñu teqale euh, ma tashtahi anfusukum boobu kon ñëw na ñeenti yoon yi ma la ko jox benn baa nga baqara ñaar yaa ngi yuusuf ba ca des a nga suratu fusilat bu ci ne wax naa la ñaata aaya la fa ñëwee waaye bu mujj ba daal mooy ma tastahya anfusukum mooy bi nekk ci suratu fusilat aaya 31 kon dañuy ñëw ci baatu wala fi sama i fil ardi wala fi sama i tudd na yàlla tudd na ko ci alquran lu bare bare waaye moo xam yu jooyoo la moo xam bii jiitu moo xam ba ca topp waaye amaa baat bii nga xam ne mooy fil ardi wala fi samaa yi dafa rot ci alquran ñeenti yoon benn baa nga Ali Imran benn baa nga Yunus benn baa ngi Ibrahima benn baa ngi Ankabut kon dére yoo gi sax taxu leen a sore noonu xanaa Ali Imran moo nekk ca kaw daal Ali Imran Nisa Maida An'am Araaf Lanfaal Tawbata Yunus kon ay saar dox na digganteem ak morom mi ci bi mu beneen saar bi mu ñëw Yunus waaye boo ñëwee ci Ibrahima ak Yunus soree ñu ne am tam mbaa ñu taqaloo daa Yunus Ibrahim borom bi tàmbalee ko ci fil ardi wala fi samaa yi ba nekk ci Ali Imran xam nga lu ca topp huwa lazi huwa alladi moo topp ci bi nekk ci Ali Imran waaye fil ardi wala fi samaa bi nga xam ni wala asxara kooku moo nekk ci suratu Yunus bi nekk ci Ali Imran mi ngi ci verset ay juróom bi nekk ci yoonus mi ngi ci ay uh, juróom benn fukk ak benn 61 verset 61 waaye bi nekk ci Ibrahima mi ngi ci verset 39 uh, maanaam ayab fanweer ak juróom-ñeent bi nekk ci Ankabur mi ngi ci aayam ñaar fukk ak ñaar defe naa di ko jiitale noonu ci ñi nga xam ne dañ ko bëgg a topp ak bëgg ko bind ci kaye yi téye ko euh, jiitalal leen ko noonu day gën a gaaw fil ardi wala fi samaa ñeent yoon la ñëw bi nekk bàqara verset cinq la ay 5 la bi bi nekk Ali Imran verset 5 la mooy ayab juróomeel bi bi nekk Yunus aya juróom benn fukk la ak benn verset 61 la waaye bi nekk Ibrahima verset 39 la fanweer ak juróom-ñeent waaye bi nekk Ankabut jooju aaya mi ngi nekk aaya ñaar fukk ak ñaar maanaam verset mooy tàmbalee ci fil ardi wala fi samaa'i huwa allazi ali imran la fil ardi wala fi samaa'i wala asxara yunus la fil ardi wala fi samaa'i alhamdulillah ibrahima la fil ardi wala fi samaa'i wa lakum suuratu ankabut la baatu arina ñëw baatu arina daanaka fi nga koy fekk néew na baatu fi ngay fekk arina néew na waaye da ngay am booy fekk ca dangay am booy fekk ca suratu baqara ndeysaan ba muy wax ci aj màkk ba mu naan waa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim borom bi wan ñu lay jaamoo wan ñu niñ la koy defale te jéggal ñu rëcc rëcc yéen ca def jéggal nu njuumte borom bi wan nu wax nu nuy aje wan nu nuy aje borom bi wax leen ko ci alquran boole noog yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu aj nu gis mu boole noog saxaabatul kiram ñu aj nu gis boole ñoog taabiina yeeg taabiu taabiina yi ilaa yowmina haada ba léegi sii madinatul munawara ngay déparé boo Sénégal nga jóge madinatul munawara ngay ñëw siyaar xabru rasul sallallahu alayhi wa sallam ci rawdu ba ñëw biiru ali yi waaje fa fa ngay armale mbaa doonte léegi dangaa dugg ci saxaar gi sax nga xam ne gaar ba nga duggee booy dugg ñu ne la ay ca mën ngaa armal ndax tolloo ngaa biir waa lii pour saxaar gu war a dem jidda te bëgguñu nga romb sa miiqa duggal boo duggee boo tolloo boo tolloo miiqa ma rek ñu ne la tàmbali armalal gaaw nga yéene dal di wax at gi nga bëgg a aj keroog ba léegi la yàlla wane woon nañuy aje moo tax aaya bi di ko wee di wax ci alxuraan naan wa arina manasikana wa tub alayna borom bi tabaraka wa taala moo wax foofu ca arina ginnaaw dafa ñëw ñetti yoon ci alquran nag benn ba nekk bàqara nekk ci ay téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett muy verset borom bi dellu di waxaat ci suratu nisaa naan arina allaha jahratan ay téeméer ak juróom fukk ak ñett verset 153 nit yonte yàlla Moussa ya ba mu leen di waar leen wax ne yàlla ma yónni nee a ngeen def lii nen na ngeen def laa amul leen luñ koy tontu naan ko danoo bëgg nga won nu yàlla nu ni ko jàkk jooju wax ju rëy borom bi dellu di wax ni am nañu naan arina alladhina adallana fa najcalahuma taxta aqdaamina loolu yàlla nga koy wax ci suratu fusilat borom bi tabaraka wa taala nee na ah yowmal qiyaam day nañ ci yàlla musal ña sawara yeey ci ñoom bala ñoo dem sawara dañ naan yàlla won nu ñaar ñi nga xam ni ñoo nu yóbbi lii ñaar ñi gënoon a sikk ci nun ñaar ñi gënoon a sikk ci nun ñaar ñi nga xam ne ñoo fexe ba musiba mi dal nu ba dem àdduna dal nu waaye ba nekk àddina dëkk ci ay njuumte te bañ a tuub dal nu ñu ne ñaar ñooñu kat ñu ne kenn ka mu ni kenn boroom xam-xam yi dañoo wax de ñu ne kenn ka iblis la ñu nekk ca des aqaabil la doomu aadama ba jëkk a rey moroom doomu aadama ñu ne yàlla won ñu ñaar ñi nga xam ne ñoo nu yóbbe lii bu ko defee ba nu duggee sawara dañ leen di dekk sunu suufi tànk joggi leen ndax ñu gën noo metti le ndax ñoo nu yóbbe lii moo tax alquran ni la arinaa lazayni adallana wan nu ñaal ñu réeral te naj'alahuma tahta naa nu def leen ci suñu suufi tànk yi joggaate leen def leen ni dàll def leen ni kawas joggi leen ci sawara borom baa ngi koy wax ci suratu Fusilat ci ay ñaar fukk ak juróom-ñeent ay 29 waaye baat bi ñuy wax ayuha ayuha waxuma yaa ayuha de ayuha ayuha haa bi haa la ayuha boo xam ne haa la ñaata yoon la ñëw ci alquran ñetti yoon benn baa ngi ca suuratu benn baa ngi ca suuratu nuur waaye ba ca fu mu nekk suuratu soxruf benn baa ngi suuratu rahman bii yàlla dafa ne ayyuhal mu'minuuna la'allakum tuflihuun ci suratu nuur booba la doon wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ci ci yaa ayyuhan nabi booba la doon wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca alxabisaatu lil xabisiina wal xabisuuna lil xabisaat attayibaatu lit tayibuuna wat tayibuuna lit tayibaat ulaayika mubarra'uuna mimmaa yaquluuna lahum maxfiratun wa ajrun karim ci la borom bi tabaraka wa taala wii ci histoire boobu di ci wax ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba ni ko wa tuubu ilallahi jamian ayuha almuminuun laallakum tuflixuun loolu mi ngi ci aaya fanweer ak benn verset 31 ci suratu nuur kon ayuhal muminuun ñëw na suratu nuur ci 31 ñëw na suratu soxrof ca 49 waaye ñëw na suratu rahman ca ci 31 kon ñetti yoon yooyu la ñëw ci alquran ba ca suratu nuur mooy ayyuhal mu'minuun la'allakum tuflihun ba ca e, suratu soxrof mooy ayyuha saaxiru udu lana ba ca suratu rahman mooy ayyuha thaqalaani kon ki ko bëgg bind ak ki ko bëgg a baamtuwaat ak di ko bañ di fàtte moo tax ñu jëkke léegi ci verset yi ñu ne verset nangam la boo demee ca suratu Nuur demal ci aaya 31 nga ñëw suratu Soxruf aaya 49 nga ñëw suratu Rahman verset 31 foofa la yàlla waxee ayyuha ayyuha boo xam ne xa saxiir la du ayyuhal déedéet ayyuha boo xam ne saxee xa saxiir la ayyuhal muminuun bokkul ak yaa ayyuhal ladina kooku mu ngi ci digg mu ngi ci digg waaye kii na dafa ñëw ci tàmbali yawma hum laale mooy dafa ñëw ñaari yoon ci alquran yawma hum baarisuuna yàlla daf koy wax ci suratu xaafir ay fukk ak juróom benn waaye yàlla waxaat na ko ci suratu saariyaat ci aaya aaya aaya aaya fukk ak ñett mooy verset 13 fee yàlla dafa ni yawma hum barizuuna bi ci des ci xaafir ba ci des yàlla ni yawma hum ala naari yawma hum ala naari boobu ci la ko borom bi tabaaraka wa waxe ca suuratu suuratu zaariyaat suuratu zaariyaat waaye xebetul mu bii na moom dafa rot ci alquran ñeenti yoon tey dey dafa bare lu ma ñëw ak yow ci rot ci alquran ñetti yoon ak yi rot ci alquran ñeenti yoon benn laa ci ñëw ak yow mooy laaray ba fii boo xam ne na ci alquran fukki yoon waaye wax na maak yow ci laaray ba fii haa joo xam ne moom itam egsiwul fukk kon damay ñëw ak yow ci yi nga xam ne dafa rot ñeenti yoon ci laa doon wax ak yow booba léegi am na ci yoo xam ne dañu ko abrégé benn ba def la ne narasa benn ba mu ñëw ni la laale te yooyu tekki woon nañu ko benn bi mu ñëw ni la xuqa yewa bu ko defee ca ngay xame ca saar sàngam ak saar sàngam lu fa ñëw mun la dafa ñëw ci saar sàngam ñëw ci saar sàngam ñëw ci saar sàngam moo tax mu tàmbalee wu hë teg ci xu muy xo teg ci i teg ci waa noo koy waxee kon xaqu iwa soo ko waxee noonu ci wolof nga bind benn bu ci ne nga xam ne lii lu ñu abrégé la waaye dangay ñëw mun la kon aqiba ñëwal fii ci bala ngaa yegg si foofu ala taabudu jooju nga xam ne moom moo ñëw ci saar yooyu nga xam ne mooy Huut ak Yuusuf ak Israa ak ak Ahqaaf kooku uh, ñëwagoo ci mooy xaqu bii nga xam ne mooy aqibatul mukadibiina dafa ñëw ci alquraanul karim ñeenti yoon mooy bii na haza bayaanun kooku mu ngi ñëw ci suuratu Ali Imran ci aaya eh, aaya téeméer ak fanweer ak eh, juróom-ñaar verset 30 eh, waaye dafa ñëw suuratu An'am ci werse 11 dafa ñëw suuratu Naxli ci verset 39 dafa ñëw suuratu Suxruf ci verset 25 aqibatul mukadibiina hada hada bayaanun ali imran aqibatul mukaddibiina qul kooku yaa ngi koy amee ci suratu anam qul liman maa moo topp ci bosu anam nga xam ni mu ngi ci aaya onze waaye aqibatul mukazzibiina qul liman maa fi jooju nekk ci anam nekk aaya onze ja ca topp mooy aqibatul bii in taxawis mu ngi ca suratu naxli waaye mi ngi ci aaya trente trente aaya fanweer ak juróom-ñeent aqibatul mukaddibiina is qaala kooku mu nga suratu soxrof yaa ngi ko fay am ci aaya vingt cinq yaa ngi koy am ca verset vingt cinq aaya eh, ñaar fukk ak juróom alaa taabudu warada fi alquraanil karimi xamsa maratin yàlla dafa wax ci alquraan juróomi yoon baatu alaa taabudu benn ba mu ngi ko wax ci suratu Huud benn ba mu wax ko ci suratu Yuusuf beneen bi mu wax ko ci suratu Isra waaye beneen bi mu wax ko ci suratu Fusilat ba ci des mu wax ko ci suratu Ahqaaf alaa taabudu ilallah inna nii boo demee ci suratu Hud verset 2 euh, taabudu illaa iyaahu Yuusuf verset 40 wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu wa bil waalidayni ihsaanan suratu Israa alaa taabudu illallah qaalu suratu Fussilat verset 14 alaa taabudu illallah inni axaafu yaa ngi koy fekk ci suratu Ahqaaf aaya verset 21 aaya ñaar fukk ak benn am xasibtum am xasibtum moom ñetti yoon la ñëw am xasibtum ñetti yoon la ñëw ci alquran ci nii mu tëdde ci am xasibtum kese nga xool lu cay topp ca yeneen saar ci ñetti yoon yi mu ñëw ci alquranul karim am xasibtum an tudxulul jannata walammaa ya'tikum mathalu alladina xalaw min qablikum kooku ma nga ci suratu baqara moom lammaa ya'tikum moo ca topp bi nekk suratu baqara am xasibtum bi nekk baqara lammaa ya'tikum moo ca topp walammaa ya'tikum mu nekk ci aya 214 ci baqara waaye am xasibtum an tadxulul jannata kooku Ali Imran la nekk moom itam aya téeméer ak ñeent fukk ak ñaar 142 am xasibtum an tatruku wala ma yaalami kooku ma nga taw ba kon ñetti yoon yi mat na ñetti yoon yi mat na ci am xasibtum an walla wala ma yaalami moo ca topp bu dee suratu tawba bu dee suratu ali imran wala ma yaalami moo ca topp moom itam bee nag ba ca suratu Ali Imran nag anta duxulu la waaye bi nekk ca ci taw ba antu traku ba nekk ca uh, suratu baqara nag mooy walam anta duxulu walam ma yatikum kenn ak walam ñaar yëpp walam ma yaalami waaye balaa ngaa yegg si ca walam ma mi bu dee Ali Imran anta duxulu la uh, bu dee bu dee tawba antu traku la mu dese la nga ñëw ci kan mooy ñëwaat ñetti yoon ban baata ñëwaat ñetti yoon ci alquran te boo ko moytuwul mu runge la ndax ñaar ya mu nekk sorentewuñu waaye bu mujj ba mu nekk dafa nekk ca saari suuf ya ca saari gu neex bu njëkk ba mooy ba mu ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kooku ma nga suratu Maïda aaya juróom fukk ak benn verset 51 waaye wa man yatawallahum minkum fa ulaika kee minhum la kii minkum la kooku mu ngay suratu tawba verset 23 aaya ñaar fukk ak ñett wa man yatawallahum minkum fa ulaika humu waalimuuna kooku moo nekk ca suratu mumtahana mumtahana safi mumtahana ak safi ñoo sësaloo jumaat ak mumtaxana safi munafiqun taraabuni talaq taxrim yooyu saara toppante kon dafa ne ci suuf waaye boo demee ci aaya juróom-ñeenteel ba verset 9 da nga fay fekk wa man yatawallahum minkum fa ulaayika humu waalimuuna nga ñëw ci beneen baat bu ñëw ñetti yoon ci alquran te yomb laa jaxase ndax dangay kuy tudd rek mu gàtt lool boo seetlootu la ca topp dugg nga ci beneen saar mooy fa maa fama lakum fil na yaa ngi koy fekk ci soratu nisaa yi ca ñeenteelu saar wala juróomeel ba fatiha baqara ali imran nisaa yaa ngi ci ñeenteelu saar mu ñëw ci verset 88 ah, aya juróom-ñett fukk ak juróom-ñett fa ngay fekk fama lakum fil munafiqina waaye da ngay fekk fama lakum kayfa tahkumuna yaa ngi koy fekk ci yunus fama lakum kayfa taxkumuuna fama lakum fil munafiqina ci suratu nisa fama lakum kayfa taxkumuuna ci suratu yunus fama lakum alayhinna min iddatin taqiduuna yaa ngi koy fekk ci suratu ahzab www.suvidécolosénégal.com